nuyu te di leen ziare bu baax a baax bu ngeen gisee nag ñu taxaw fii tey ngeen xam ne daaray xasaayit moo ngi waaj ay mbir yu am am solo ay émission yu neex a neex ngeen ci ànd ak kan seen mbokkum émission bi nag ñu ci amal animation neex a neex a neex di ci dalal ay sikarkat ñu daanaane di ci dalal ay jànkati xasaayit émission bi nag gen koj ko fii ci daaray xasaayit ci YouTube bi tey ñaan ngeen ci abonné nag ngeen bësee fi ñu bind abonné tous colonne bi ngeen bës ko rek di ngeen daal di mën a abonné ci daaray xasaayit su ko defee dara bañ leen cee rëcc dara bañ leen cee kon nag koñ leen ñu foofu ci biir YouTube bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu